tey jii nag ci alxames ji yemook fukki fan ci weerum décembre atum 2020 li gën a fës rek ci biir internet bi amee internet yu 24 actu yi dañu koy door rek mbas meek tolluwaayam ci biir réew mi tey jii ci alxames ji Sénégal def na lu tollook 1284 ci ay test ci biir loolu 101 rek ñoo ci daal di ñëw positif ci biir 101 yooyu rek am nañ ci 52 cas contact ak 49 cas issus de la transmission communautaire Sénégal amul benn yoon cas importé euh, cas communautaire yooyu nag gox ya feeñ bokk na ci Wakam am na ca 6 Liberté 6 am 4 Risatol am 4 Almadi 3 Pikine 3 Mbour 3 Podor 3 Yoff 3 euh, Cité Keur Damel 1 Jëppal un Gueule Tapée 1 euh, Kaolack un Liberté 5 1 Mamel un Mariste un Médina un Mermoz un Niakhère 1 Ngor 1 Nord Foire 1 Ourossogui 1 1 Point 1 Scat Urbam 1 à Thiès 1 Tivaouane 1 Yeumbeul 1 zone B 1 46 patients yi hospitalisé woon wër nañ ba dellu nañ seeni kër Sénégal am na lu toll ci 12 cas grave démb rek ci àllarba ji Sénégal wàññi na lu toll ci ñaari décès bi mbas mi nag duggee ci biir réew mi ak léegi Sénégal wàññi na lu toll ci 16 766 cas ci biir loolu nag am nañ ci 15 950 yu ci wér 343 ñàkk ci seen bakkan ñi ñuy saytu nag ci lali hôpital yi ngi toll ci ak 472 ministre bi rek di gën di ñaax askan bi ñu gën a sàmmoon te ka mesure barrières yi ngir xeex bi ñuy xeex mbas mi mën a gaaw rek génn rek ci mim réew ci mbas mi rek la ñuy daal di dese nii ndax gis nañ ki nga xamante nii rek moo di Abdoulaye Diouf Sarr daal dinay amal nag ak janoog taskatu xibaar yi tey rek ci alxemes ji xam la ne lépp loo xamante ni mu di mesure barrières yi nga xamante ne nii ak kër docteur digle na ko danañ ci def nag seen kéem kàttan ba askan wi respecté ko ngir li nga xamante ni moo di takku mask mi nañ li nga xamante ni moo di jàngoro ji dafa ñëwaat bu baax a baax ngir amaat place ci réew mi te loolee duñ ci bañ dara danañ def rek seen kéem kàttan ba ñu respecté li nga xamante ni moo di mesure barrière yi nga xamante ni kër docteur digle na ko ngir ñu mën a xeex mbas mu gaaw génn rek ci mim réew ci mbas mi la ñuy daal di desee ndax gis nañ ne dafa dugg bu baax a ba ki nga xamante ni rek moo di Mamadou Lamine Diallo dañu ko daal di testé mu daal di positif ak député boobu lee di Marie Louise Diouf daal di faatu ñu gis ne rek li nga xamante moo di Covid 19 moo ko daal di faat ba xam le nañ ne rek seen séance yooyu nga xamante doon nañ ko amal foofee ci assemblée dañu koy daal def à huis te dara waralu ko rek lu dul mbas mi daal di nañ ciy toftalaat ne lu tollook ñaar fukk rek ci ay député daal di nañ leen di hospitaliser te loolee dara waralu ko rek lu dul ak Covid 19. ñu daal di woyee ni wax bi la yoon ci ki nga xamante ne nii rek moo di xalifa saal nag gis nañ ne rek jamono ji nekk nag ñuy gën a waxtaane ci réseaux sociaux yi ginnaaw gisante bi nga xamante ni gisante ne ko ak kii di njiitum réewum Sénégal di Macky Sall ñu gis na nekk ku nekk rek yëy ci yàb bi ñu gisaat rek beneen photo ne dafa gisante ki nga xamante ne nii rek moo di Ousmane Sonko loolee nag Mame Gor Diazaka daal na ci yëkkati rek ay kàddu ngir xam ne ne ki nga xamante nii moo di Khalifa Sall demul benn yoon seeti usmaan Sonko Ousmane Sonko moo ko seet si ndax nee na Sonko amul carrure amul daraja joo xamante ne nii kii di Khalifa Sall war na ko seeti daal na ciy toftalaat ne Khalifa Sall il faut que mu def attention bu baax baax ndax Ousmane Sonko jërul dem di seet ndax koo xamante ni loo wax rek du doon dëgg benn yoon jërul di ko seeti ndax nee na Ousmane Sonko nekkul nit ko xam dañ koo war seeti te Khalifa Sall bu ko moytuwul mën na koo yàqal te nee na Khalifa Sall askan wi dañ koo soxla kon nag na def nànk bu baax a baax ci doxin bi nga xamante ni mi ngi koy doxalee a jamono jii dañuy wéyee ni rek wax bi la yoon rek ci affrontement bu méttee métti doxoon ci diggante étudiants yi jàngee ci université euh, Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak force de l'ordre yi ngir étudiants yi dañ doon réclamer li nga xamante ni euh, moo di seeni bourse ba tax rek ca di sànnee nag ay xeer ak yu ni ba ca lañ yàqee ambulance kud boobee nga xamante ni nii moo yóbbu bu ñu amee woon ak cas d'urgence étudiants yi nag mer ba futtu ba tax rek ñu doon réclamer loolee nga xamante ni moo di seeni bourse comme ni ma ko waxee ba tax rek ca lañ daal di yàqee ambulance boobee lépp loo xamante ni rek ruusaniwaat na ko jëm ca mbir moom le dañu leen ko toppal ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu wax rek ci bi la yoon ci affaire Iba Thiam Dame Amar nag ak ñi nga xamante nii rek tëjandoo nañ leen woon dañ leen àtte ndikki 23 décembre bi ñu dëtmal ci fàttali rek lañ leen toppee woon rek moo di benn soirée boo xamante ni organisé woon nañ ko ci benn appartement foofee ca Almadi ci guddi ko 3 jàpp 4 avril 2020 ci jamono ji nga xamante ni couvre fa la woon ñu daal di violer euh, boobule loi ba taxoon rek ñu daal leen tegoon loxo ñoom xale yooyee nag tolloon nañ ci juróom-ñetti nit dañ leen nag décembre bii ñu dëtmal ñu wéyandi wax bi la yoon nag ci loo xamante ni dañ koy faral di gis rek ci milieu sport bi muy racisme ak xeex bi nga xamante ni ñu ngi koy xeex rek del bu ñuul ñu gis ki nga xamante ni nag moo di Demba Ba dafa réagir bu baax a baax ci xeex bi nga xamante ni ñu ngi koy xeex der bu ñuul ba tax rek ki nga xamante ni moo di Didier Drogba ak Samuel Eto'o kontaan nañ bu baax a baax ci li nga xamante ni Demba Ba réagiré na noonu waaye ki nga xamante ni rek moo di Pape Cheikh jàlloo def ca daal di yëkkati nag ay propos yoo xamante ni doy na waar lool ndax nee na nag ndax. nit ku ñuul rek dafa niroog li nga xamante ni moo di golo ñu baal ma rek ci kàddu yi du samay kàddu Pape Cheikh moo xam ne yooyu les kàddu ba tax la rek yooyu propos ba mu ko génnee gis nañ ne rek ku nekk rek mi ngi ci di ko mettitlu bu baax ba tax rek Pape Cheikh Diallo daal di génnaat joxe nag li nga xamante ni moo di ay excuse am ne na moom lépp loo xamante ni wax na ko jubluwu ci leen rek lu dul reetaan ak yu ni mel waaye moom Pape Cheikh Diallo nag daal dinay présenté nag ay excuse am nee na intention am nekkuloon benn yoon di blessé mais lu def lépp loo xamante ni dafay reetaanloo nit ñi rek moom ci lay dox waaye nee nag mi ngi jégalu nag bu baax a baax kàddu yooyu nga xamante ni nii a yëkkatina ko daal di ko jëmale rek ci nit ku ñuul. ki nga xamante nii nag mooy jéggalu jamono ji nekkul kenn ku dul animatrice boobulee di sofia mi defoon rek benn interview ak ki nga xamante ni moo di liiru Diane ba Lirou doon ko xamal na ko yor naa say ay photo ak vidéo yoo xamante ni dama koy génne partagé ko moom Sophia nag métti lu na bu baax a baax lu ni mel ndax nee na kii di liiru amul benn yoon ay photom te nee na loolee nekkul woon lenn rek lu dul jeu nee na ay waajuram mere nañ ko ci askan wi mere nañ ko ci te moom jigéen la ëllëg ñaan na yàlla am doom ñaan na yàlla tamit am borom kër ba tax rek muy jéggalu askan bi ngir ñu baal bu baax a baax ci loolee nga xamante ni ah, doxoon na ci ay kàddu yu ñaw ak ay image yu ñaw amoon ci diggante ki nga xamante ni mooy moom Sofia ak Lirou Diane ah, dañu koy daal di jeexale ak Lena Gueye ginnaaw bañ ko gisee rek ak tenue bu sexy bi nga xamante ni sol na ko ca série boobu lee di infidèle di am foofee ca Sen TV mu nekk nag benn tenue boo xamante nii ni ah, choqué na lool téléspectateurs yi nekk tamit image bi nga xamante ni ñu ngi koy gën a waxtaane jamono ji rek ci réseaux sociaux yi mi ngi noonu ngeen koy gisee rek ci image yi amee internet yi noonee rek la kenn ku nekk daal di choqué ginnaaw ba nga gisee rek boobule image li rek moo fi gënoon a fës nag amee internet yi dig daje rek lay doon bu ëllëg ak jàmm